li ma ko waxee woon keroog rek ndax yéen moom da ngeen di jëf rek te boolewu leen ci wax séentu leen ku leen ku leen ku leen sant tam séentu leen ku leen gërëm waaye nag li ci am solo mooy ki tax ngeen di ngeen di ko def muy sëriñ bi tam defe leen ci tawfeex ndax na ma ko waxee woon keroog rek li moom képp ku lu ci jiitu ko ne jiitu na la bu faw ndax loo xam ne mooy jeexati sëñ bi te moo ko daay yëkkatit boppam kon ku yàlla defal tawfeex boole la ca war ngaa góor góorgóorlu te xam ne yàlla tànnal na la yoon wu gën a jub yoon wu gën a tawfeexe kon suñu Ablaay yaag kuréel gépp nga xam ne sëriñ bi da ko boole fa allafa bayna qulubikum fa asbahatum bi nihmati ixwanan loolu la leen defal ci daayira bi muy lu ko Sëriñ Tuubaa liggéey ndax liggéey loo moo moo di lii te keroog ba mu koy def itam wax na ma ci làmmiñam ne li ma ci jublu de moo ci noppee dana dana dana la noppal ci sa liggéey kon nag moom am ngeen tawféex ndax ñëpp dañuy dàkk bëggu sëriñ bi ko dem ba sëriñ bi war a digal la nag nga góor nga góorgóorlu wàcc nga kon la sëriñ bi waxoon rek ne woote loon nañ ma woote naa ñi wuusi wàcc nañ maa ci des ñi wuusul wàcc naa ñoo ci des kon nag yàlla na gën a taxaw te gàttandu leen te xam ne xaside yi moom képp ku koy dund day dem ba doo amati benn yëg-yëg sa digg ak sëriñ bi loolu moo lay wéttali ji sa waxtu ne ndax loolu nag tawfeex la ndax suñu borom ay def noonu loo gën a dox jëm ci moom mu gën laa gàttandu ndax ñi nga xam ne kat yàlla nattoon na leen ñu jëm ci wàllug àdduna lu ci gën a xuus rek di ko gën a bëgg waaye sëriñ bi nag loo gën a dox jëm ci moom mu gën la agatal kon nag kon na ko sëriñ Sary waxoon rek xaside yi moom ñanaaw la muy donq yi ak laaf yi mënuñoo tàggoo muy ñi koy jàng ak ñi koy diglu kon bu ñu amee tawféex di ko diglu sant na te xam ne ku yàlla xiir ci lu baax ndax wa isa sukirallaahu wahdahu suma azzat qulubu lasina laa yu'minu bil axirati wa isa sukira lasina min doonihi isa hum yastabsiroon ñi jug jëm ci lu baax fu ñu déggee lu jëm ci luy kenn yàlla ak lu jëm ci suñu borom ak lu mel lii ñu doon jàng ñu ñu bëgg lu baax te yàlla na leen dimbale seen xol day day dox jëm foofa waaye ña nga xam ne nag eh, yàlla defut gindik googu ci ñoom loolu sax day du yokk wala ñu daw daw jëm feneen kon nag yàlla yàlla gën a dimbale ci barke Sëriñ Tuubaa gën ñoo gàtt gàtt ndoom dimbale ma taw fi xam te xam ne eh, sëriñ bi waxoon na ne yàlla suñ boom kum nar a dimbale da lay yee ci boppam yaare ci boppam nag mooy wan la yoon wi nga war a jaar kon nag yàlla ñu dimbale ba li nga xam ne moo tax mu boole mu boole ñu ci ay taalibeem te te ku ci bokk ku ne moo la tànnal boppam moo ko waxoon yàlla na ñu dimbali ba tànn gëm ñu tànn boole ñu ci biiri taalibeem yàlla yàlla yàlla yàlla nañ bokk ci taalibe yi nga xam dañ leen pukkari bu ëllëgee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. amin amin amin amin ngir jot sunu ay vidéo di di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international